Mm-hmm. yorfa dem na yëkkatee alxadasu tojle bil mullate ci ndox moo xam ne ndoxam mu lax la mooy ndox muy jooyal hukumul xabasi xatteeb xabas te mooy sobe des na ko yëkkatee du mullate ci ndoxam mu lax mooy ndox muy jooyal moom la moo lay firil lan mooy ndoxam mu lax woo moom maa mooy loo xam ne sax dafa daggoon andee ci moom ismu maayin pour ndox bilaa xëy na ñu dul benn dakkental kenn du wax ne ndoxam la koloñ la kenn du wax ne ndoxam garab la kenn du wax ne ndoxam làcc la kenn du wax ne ndoxam póot la dañ lii la ñu ne lii de ndox la yem ca lu mel noonu mën naa yëkkati tojle mën naa yëkkati sobe booy jumaa doonte dajalees na ko mel na dañ cig lay doon di nga xam ne ci lay ba nga dajalee ndox moomale ba ba am ci lu bëri mën naa yëkkati tolle mën naa yëkkati sowe aw saaba wala mu de galaas boo xam ne dafa ruy ba nga duñu moo di nii ci gannaaw bu mu woyee ndox ma nga xam ne bii nii yow yaa ko woyal ba mu nekk galaas wala boog jaww moo sedd ba mu woyal boppam ba nekk galaas galaas gannaaw ba denn ruyaat ndox moom ci boppam mën naa yëkkati tojle mën naa yëkkati sobe aw kaana wala mu nekk sax subra bahimatin den yëkkati naani baahima wala muy ndox moo xam ne mi bahima moo ci naan mu des mu waaye nag buñ buñ ko tiimee ndox lañ ko tudde benn soppeeku tàbbiwu tàbbiwu ca mën naa yëkkati sobe mën naa yëkkati tojle aw xaayidin wala aji xaydu moo doon naan ci ndox mu mu des aw junubin wala borom janaaba moo doon naan ci ndox mu des aw fadlata taharatihima wala ndesiti laab seen ñoom ñaar wala ndox moo xam ne mel ni borom xaylu moo na waaye soppeeku wut wala moo jëloon doon laabee des na waaye soppeeku wut ndox moomu mën naa yëkkati tojle mën naa yëkkati sobe aw ko seen wala muy ndox mu bëri wala te jaxasees na ko ba na gisin ci sobe soo xam ne lam yu xayyir soppiwu ko noonu bare bare bare sobe tàbbi na ca waaye soppiwu ko mën naa yëkkati tojle mën naa yëkkati sobe aw sa ka wala muy sikk sax fii mu xayyir yi ca la ko soppi xar yàlla ndax yëggu dana lor wala du lor wala gis na ci soppeeku mu ay sikk sàkk ndax soppeeku bile ci ndox dana lor ba du mën a jàpp wala du lor bu yeboo itam nga notal ne su lor rek mën naa yëkkati sobe mën naa yëkkati tojle aw tax a yera wala soppeeku na sax waaye du du mu jaawale xëy lu dëkk moom moo ko soppi ndox mu xonq suuf su xonq la dëkkat moo mu ñuul la dëkkat moo tax mu ñuul suuf su weex la dëkkat moo tax mu weex mën naa yëkkati sobe mën naa yëkkati tojle wayen bi duxunin doonte dafa dafa soppee ko ci diw goo xam ne laasaxa dafa tey ci mbuus mi mu diw goo xam ne génne dafa tuq ci mbuus mi raxas nañ raxas waaye ba léegi mu ngi xeeñ ci mbuus mi moo soppi ndox mi ndox mi ba léegi mën na yëkkati sobe ak weraay xeeti xatiraani winaay yi musaafirin wala ak gororong yi ndabal aji tukki musaafirin muy tukki mbuusam moomu muy def ndox noonu gouvernement bi nga xam ne bii moom la ci digoon ba tey moo cee xeeñ ba tax na ndox mi soppeeku na teewul ndox moomu le mën naa mën naa yëkkati sobe ah bi wala ndox moo xam ne dafa soppeekoo ci liggi doo minu ci ndox ndox moo xam ne nii la ko sopp mooy ñàmmoŋ mu nga xam ne ndox maa ko jur ndox moomu mën nañ koy jëfandikoo. ak ba xalaale wala fam sax wala sotteekoo kamil ni ki ndox moo xam ne dafa sax ci place xorom ba sotteekoo ci xorom ndox moomu le mën naa yëkkati toj le mën naa yëkkati sobe ak marooyin wala luñ sànni ci kaw ndox ma ci yi may bëgg a na yi may yoo xam ne yow ci sa bopp boo ko sëqee sànni ko ci ndox ba ndox ma sotteeku walaw xab dan doonte yow yaa ko jublu tey yaa ko tey def ko ko tam ba tey ndox ma mën naa yëkkati toj toj le mën naa yëkkati sobe li may bëgg wax mooy min turaabi suuf soo xam ne yow ci sa bopp yaa ko sokk sotti ko sa bopp ci ndox mi sotti ko ndox mi aw min hin wala xorom soo xam ne yow ci sa bopp yaa ko sokkal sa bopp sotti ko ci ndox mi sotti ko sotti ko ndox mi wala xas dan doonte danga ko caa jublu woon looy def mu ne suuf laay sotti ci ndox mi looy def mu ne xorom laay sotti ci ndox mi xoolee itam du tax mu sotti ndox ndox ma mën naa yëkkati pëlle mën naa yëkkati sobe waaye nag wala arjëw la gën a lënk fa indi yoonu sax muy ak bu du koy lekki de bin mi nii ku dee xorom indi yoonu sax nee na xorom moom boo ko defee ci ndox moom dootu doxati ndox moom loolu mooy ndox moo xam ne yàllaa ko liggéeyal boppam ca dex ga mooy mooy xolam soo xam ne yàllaa ko liggéeyal boppam ci dex ga wala mooy xolam soo xam ne yàllaa ko liggéeyal boppam ci biir suuf si waaye nag Ibnu Yunus moom nee na xorom dafay rékki ndox léegi nag ba fi nit ci faaxe mi ci dëppoo ñun borom xam-xam yi yëpp yëpp yëpp dëppoo nañ alal salde ci rékki ndox bii ci xorom il su ne même xorom la soo xam ne dañ koy liggéey maa ne boo demee ci yenn réew yi fu demee ni Casamance am na am ci am nañu mooy tuddal duñu am ci dégg dégg laa dee fu yëkkatee sobe dee fu yëkkatee tojle bi mu tax a yii nañ ci ndox moo xam ne dafa soppe ko law nan ci melo aw tax man wala ci càpka aw riixan wala ca xeñ mu tax mu tox mu soppeekoo nag mu naji loo xam ne yi faay xool dana taxale ko ndox xaali bañ ci lu not min taayil moom aji laab la waaye takkuwut ak ndox sotti na ndox ndox ma mënatul a yëkkati sobe aw na ji wala aji sobe la takkoo naag ndox sotti na ndox mënatul a yëkkati sobe ka dox nit ni ki di goo xam ne xaalata jaxasoo na dox nit laataxa lañu waxoon ci gannaaw ne du sotti ndox mm-hmm. waaye dox nit xaalata boo jàkkaarleeg ndox mi yaa ngi gis ne ko jaxasoo kooku kay sotti na ndox ma ak buxaari mastaka wala saxa si cuuraay moom moo xatteeb ndox nag te mu xëy mu ngi mel ni xatteeb la ko soppi la ko soppi bu laabee mënta jàpp de waaye ndox mu laab nga amee la ko soppi bu dee sobee ndox mu sobe nga amee waaye doo dana loo nag bayyinu taxayurin bit gi soppeeku bi xabli saaniyati di ci buum ak baag boo xam ne bii nii moom lañ doon rëddi moom lañ doon moom lañ doon rootee ndox mi bu bu soppee ndox mi soppe gu gu yem du wàññi dara waaye soppe ga bu demee ba biir nag xamat xamal ne xamatuloo ndox moom mën a jàpp ci xadiirin naka noonu dex boo xamee dafa soppi koo daraw si marché yétin soppi ko gu gu diir dex kaka eh, eh, déeri ni ki déeg soppe koo daraw si marché yétin ci neefaree jóor déeg bu soppe koo ci neefare boo dikkee ndox mi da xeeñ waaye birul lool mën a jàpp mën a sangu waaye bu demee ba biir nag dootu ko mënati aw biirin wala teen di waraqe sajareen ci xobi garab yi sotteeku ci biir teen bi soppeeku na tuuti du war du waraqe sajareen ci garab yi daanu ci biir teen bi soppeeku na tuuti du wàññi dara soppeeku soppeeku biir na amatuloo ndox mu mën a jàpp aw timmin wala xetex moo naaw sotteeku ci teen bi wala asara la gën a feeñ fa indi yoonu sonat fii biiril baadiyati ci teen yoo xam ne yii ne ci àll ba la nekk kenn du ko dëpp te àll ba dafa bëri xob dafa bëri pënd bii ma ci xobi garab ak xetax aljawaasu mooy mu ngi dagan ba tey gannaaw teenoo àll la daal xobi garab yu bëri ci biir wala xetax bu daanu ci biir du ko soppi ba tey mën nañ koy jëfandikoo léegi nag li may laaj wa fi jahalil muxaalifi ni ci def ak jaxasoog ndox te kat al muwaafiqi aji dëppoo la ak ndox ci melo yu ñett kal muxaalifi nekk aju wuute ndox ci melo yu ñett da nga am benn liquide boo xam ne bi ne dafa weex tàll kañu dara liquide boobu moom nga jël def ko ci ndox mi ndox mi mel na meloon ban tey kañ da kañ la noon xañ xañ xañ ban melokaan wu cef gi soppiwut cef ko gi soppiwut melokaan wi soppiwut xeeñ gi waaye yow wóor na ne liquide la boo xam ne jàmbur la ci ndox nga sotti ko ci ndox bu mu ba sottee ko xanaa kay dañ ko def pour mu xaale bi dañ koo wóor nidale ak bu xonq bi te liquide bu xonq bi boo ko defee ci ndox dootu mën te jëfandikoo wala ñu def ko liquide bi xëy te boobu boo ko defee ci ndox duñ ko mën a jëfandikoo wala nga def yu liquide bi sax te boobu boo ko defee ci ndox du ko mën a jëfandikoo wala boobu dañu naan sottiwu ko sottiwu ko rek kanaa sottiwu ko ndox la ba tey wa fi jaalil muxaalifi mi ngi aji def ndox al mu waasaxe ci dëppoog ndox ci melo yu ñett kan muxaalif yi ni ci aji jaxasoog ndox te wuuteeg moom ci melo yu ñett merta noonu na ci deng deng ba bi tariwee ndax da nga nay laabee sax bi mayee ci ndox moo xam ne jëngee ne dañ ko defaloon filpam mi ci gémmiñ jënd ko génneaat ndox moo xam ne bi dañ ko galande ko soppeekuwul capp gi soppeekuwul melukaan bi soppeekuwul waaye jaar na ci gémmiñ nag ñu doon ko dajale fii ndax mën naa laab xalaa ne nañ ci ñaari wax wa kuréel fi bees na maa ngi ndox moo xam ne mosuma ma doon dañ ko doon jëfandikoo fi xaar seen cëppal la mu def te ba nga xëyee mi jëm ndox moo xam ne mbir ñi nag dañ ko doon jëfandikoo ci lu dul tojlee te mu des te soppeeku ndax seen nañ ko wala siwuñu ko mën a tëdd deng deng mu yasiirun néew sim nañ ndox moo xam ne mu néew la ka aane yeti wuddooyin tolloog ndabal njàpp képp Euh, bi najitin mu jaxasoo ak sobe ndox mu néew moo xam ne ndafa jàpp la tolloo jaxasoo ak moo xam ne bi najitin dafa kaani yitin wuddoo yin tolloog ndafa jàpp képp képp bi najitin mu tolloo mu jaxasoo sobe moo xam ne lam yu xëyi sottiwu ko sib nañ nga jëfandikoo ko waxuunan wala mu tolloog ndabal cangaay dina gis mu jël jaxasoo ak sobe te sobe ba lam ñu xëye sottiwu ko suñ ci biir la aw ma kalbun dawkat nañ nga jëfandikoo ko waraake doon ndox mu way ab jéeg la xasande la yoxta soo dee sangu fii fii ci biir ndox mu way moom ndox ma yolut dem fenn sim nañu ko wa suuru saari bi xam leen ndefiti naankatu sàngara sib nañu ko ba ma loo xam ne ab xalaat tàbbal na naankatu sàngara yeddoo loxoom fii ca moom te mu de lu mel ni ndox wala loo xam ne lu tooy la ba ma lépp loo xam ne layeta waxaanu du du wattandeku najasan sobe mu tàbbal ci loxoom wala mu tàbbal ci gémmiñam min mayen ci naa la moom ndox la laa waxuma lépp lépp inoxatu lan dem joxe na léegi daal ba wattandiku minu ci moom lépp loo xam ne mucc ci tëna loolu moom toppuñ ci kenn aw kaana wala mu nekk temps man de ñam wala muy ñam la saakoob ceeb la naan kër sàngara dugal na loxoom ci biir ceeb bu wow boobale wala ku du sob ku dul wattandiku sobe dugal na loxoom ci biir ceeb bu wow boobale loolu dara nekk ja ka mësa misin ndox muñ tàngal ci jant ba mu tàng jiitu kenn terewoo ko wamaa loo xam ne la nga tawakkaar da woote ne ko na seen sobe léegi nag wamaa loo xam wa indi an leen ci piis la xalaat yi ci gémmiñ yu so woote ko sobe ñu gis ci gémmiñ nga sobe wax wax waxta simaane yi waxtu ba mooy jëfandikoo ndox moom la ñu jëfee àndiwaat ci la gis gis nañu gémmiñ ngaa nga tokk sobe dugal na ko ci ndox mi nga nañ ko bàyyi wayen maata bu dee bëri yun rabu jii bi soo nafsin borom deret saa yi latin deret ji yoon biraa ki dañ ci ndox moo xam ne yolu dem fenn ab déeg ci biir déeg ci la aw nag daaru dee wala mi taxe yer waaye bëri soppeekuwut wala boo nga xam ne ci biir teen ba la daanu te soppiwu ko nuri ba soppee na nas wu ngacc ndox ma ba xadaree maa ci kem bëri ndox ma ak rëy rëy garab rab ba ba xadaree maa ci kem tuuti ndox ma ak tuuti rab ba benn picc la ndox mu tuuti la nga nga ci lu tuuti ndox mu bëri la rab bu rëy la nga ci lu bëri laayeen waxaa waxuma boo xamee ne bii dafa tàbbi ci biir ndox ma mayitan aji dee ko kay doxaata nudi ba wajabal ay doon way saala bu dañee taxayuru najisi soppeeku ndox mu sobe lu ko soppi ndox mi dafa sobe ba soppeeku taaj nañ ko ci wetu yàgg dem naa ba teey boo gisee boo ko gisee léegi xonqatul soo ko fóonee xeñatul soo ko mosoon safatul parce que si na rafetloos na ak taxóori yëtu laat waaye nag laa bi kese te mbul la kenn waxuma su fekkoon ne day jël ndoxam mbul la mu bëree bëree bëri sotti ko ca kooku nag kooku moom laab na léegi nag moom la bu sotti loolu li ñu wax mooy yàgg ci ëtt bi kañ ginnaaw teg ko ci dem ndox mi teey bu boobaa ku suuf na rek loos na ëtt ko yëpp laab waaye waxaa da mu xaar ñàkk a laabam aljuma mu gën a lëkk fa indi yoon sa mu jëlee ko ci côté boo ko bëggee dañu leen nangu nag xabaru waaye di waxee kenn ku la waxee noonu dafa sobe de dafa sobe wut de in ba yéene bu biralee wajaha xanamu sobe sax wala xanamu laab ba awit tabaxaa wala ñoom ñaar dëppoo nañ mazhaban yéen a bokk mazhab mooy sobe na loolu ci gëstu yéen a bokk mazhab mooy sobe loolu ci gëstu mooy laa ne nga xam ne biralut xanam ba wala laa ne moo xam ne dëppoo leen masab fa xaaral wax na mas yi ci jëm ñu boppam nañu soosoo def na rafetlu tag ko bàyyi la nga waroon maaye kaddu ndox xanaa najaasa ci sobe ndox moo xam ne ne ci koolo bàyyi ko di soo def ci sobe ba taa nga fekk ci taataab boobu temps mu mel ni ndox moo xam ne mii eh, dañu dafa taawoon nga sobe sotti ci day nekk sobe saa si li gis waa sobe benn la rahmaan rahim faraidul wudooy hmm. faratay njàpp xasuma mooy la xam ne xam ne bay nan usu na nekk na ci diggante ñaari nopp la may waxee kalkanam mu ngay laaj kalkanam bu mu tàmbalee ak même mu waxal la moom kanam fi mu tàmbalee fi mu am moom mooy maa bay dal ku sunna la nekk diggante ñaar nopp ñi di ko tàmbalee ci moom nopp ndeyjoor bi di ko nopp càmmoñ wa manaabiri saari ak faxawaayu kawari bopp kawar yiñ baaxoo bañ daal sax kawar daal fa boo ko tàmbalee war sokkale ba ci sikkiñ di ko tàmbalee foofu yëpp nañ ko raxas wa saari lixiyati ak kaw sikkiñ bu amee sikkiñ ñu dem kaw si kaw kawal sikkiñ sa kawal sikkiñ mu gudd gudd gudd lépp mën nga koy raxas dugal na ci lañ daan wax karkanam noonu danaa noppal nekkul bi daan karkanam nga daan ko karkanam fan la yem def la ne dangaa raxas dafa tàmbale ci nopp ndajoor ba ci nopp càmmoñ dafa tàmbale ci saxuwaaye kawar bi ca bopp ba eh, yaxu sikkiñ bi ak kawaare sekkiñ yi lu mu gudd gudd gudd lépp wangale na laal mu doon laa leeral waaye yaa si loolu dana raxas xalwatara da fii wiira ñoo xam ne ñu ne dafa nekk ci kar kanamam wa ataare rajapate yi ak ay rëdd rëdd jëxam wa taahira safate yi ak kow ñaari tuñam bi tax ne ne saa ànd ak këlliin kawar boo xam ne basaru dana feeñ albasar derab yaram bi saytoo ci suufam waaye nag laa waxuma jam-jam boo xam ne bëri ah dafa wéet di def pax te waxul ne toppal pax moomu ba mu ba mu tooy aw xolokan wala pax moo xam ne dafa nekk ci kanam yàllaa ko bindee noonu xaayaran mu ne ak a xóot laa jarhan laa jurhan waxuma jëm jëm boo xam ne bëri ay wér na mu xaa iran di aja xóot aw xulaxa wala yàlla moo ko bind xaa iran mu di aja xóot mu dugg ci waaye day ak raxas ba xëyee ni ñeent semaine ak njëriñ ci tikku ñara ñun xusaan nag mu xam ne mbir ñi tëggeef na ko ku xam ne ci nii loxoom dafa am luñ ci tëgg waaye am na lu ci def ba tey lam gàtt gàtt war na koo raxas te këf ni ngi kenk loo xam ne yàlla da ko bind du man ki biñ ci mbagg koo xam ne ci nii ci ci kaw mbaggam la kenk bi nekk moom amul loxo kenk la am ak mbagg kenk laa nga dem sax ci kaw mbagg ma loxo lañ ko tuddee fekk foofu ñu mbagg ma raxas ko fa loxo nag boo koy raxas bi tax léegi asaame yi ana xelli ay baaraamam waaye nag laa ijaalatu xaatime yi waral lañuy windeel jaaru ci njàpp wala xada dana toxal na xayroo lépp lum takkalul jaaru moom dana ko toxal baronam tooy boo ko dajee farataay njàpp masuma masaa loo xam ne alal jum juma si nekk na ci kaan yi kaa nga bopp mi lépp lépp war na koy masaa bi xas mi su xëy ànd ak yaxu ñaari ñaamam maal mosta xëy ànd ak lépp luy yoore ci ñaamam yi yépp war na koy raxas wala yan xulu du firi nag dafaroxoo ndéttam rajulun góor bu ndéttu njàpp du ko taxal firi ndéttam ay imraatun wala jigéen joo xam ne jigéen dafa lécc léttu njàpputu tax mu firi léttam li ñuy def daal mooy wuyut naa dañuy tàbbal yadda yi ma seen ñaar loxo ñoom ñaar pentewoo ca doon létt ya àndale ko létt ya jàllale ko ba ci jëwe di rëddit matti bu ñuy delloo matta loxo matta dañuy teg loxo bi ci kaw létt yi di ñu dell ko ronoir di ko ñodd bu ci jëwe massa bopp laa wax waaye waxaas la raxas ko fu mucc aji doy la walis massa waaye nag massa lay santaane waxaas la dañ lay raxas ñaari tànkam bétee ba yi ànd ñaari dojoom dojooram moom itam farata la ak naa di ay ni ñaari dojooram ñi da way yëkkati ko noona bi ma salis saa saa ni ca faram fànceewu ñaari xeel yi mooy ñaari dojoor yooyu nga xam ne su lay xëyal tàmbalee digaloo fi ak tàng moom itam booy raxas tàng da nga dem ba leen ñoom ñaar wala dama soobee nag sax leeru asaab yi ma xëlli baaraami ñaari tànk wala yéen du baax na man koo xam ne xal la man lelli na suburoo we am gannaaw bu mu jàppee jàpp bu pare lelli ay we am du ko tax a baamu door julli du ko tax a baamu lam julli woon aw xalaxa wala mu war resoo boppam jàpp bu pare watu door julli du baamu jullim dafay ne yéete ni di waa ji nga xam ne nag dafa jàpp bu pare wat sikki ñam door a julli ndax dana baamu wala ne am ñaari wax bokk jàpp yi atal ko ràgg waa al yàlla ma almuwaalaatu méngale waaji ba suñu aji war la téere yu njëkk yi de wal fóoru lañ daan wax dafa tuddee méngale ñu daan wax ne farata la moom na mu ngi laaj ndax waaji ba suñu aji war la in sakara bu ko fàtt la ko waaye boo ko m mu wàcc la waxadara w mu man ko wala boo ko boo ko mënoon doon farata ci yow bu ñëwee waaji ba suñ la ak bu ñu wax waaw in sakara bu ko fàtt la ko waajiboon aji war la in sakara bu ko fàttalikoo a la dem man ko su ko fàttee rek di jàpp di kanam xel di génn ne da jàpp mu bëgg kalam ni dikkaat mu bëgg a mot ni jàppam booba naa day jokk ke lam tàmbali woon dina yëg na ànd ak yéene bu ees yéen ñëpp yéen ñëpp fàttaliku na mu laxan moo xam jege na wala sóosu na waaye nag bu demee ba xam ne tey mu mën na fay muus su boobaa dafay am daal dañ ko jàngi di kanam waaye nag ñu sax bu nootee nag bu nootee ki fàtte ki laa insa kala bu fàtte ko ki fàtte ki woon ni da doon jàpp ba ci kanam kanam daj ko kooku laa ne bu fàttalikoo ne dafa tàmbali woon jàpp bàyyi ko bi dugg ci leneen wa banaa dafay jot waaye naa jësa bu lootee moom itam banaa mu jokk ci la ma màlli woon benn yéen ci yéene waaye kooku nag moom bokkut ak kële mu mu maalam yettul day yàggut la yàgg nag maasaa yeggoonu te comme daa nekkee bi jëfaa bi ah bàyyi di fendi céer bi sama ne eh, intérêt la céer yoo xam ne doomu na bi sama nin ci jamono joo xam ne jëne intérêt la diggu doomu na céer yoo digg doomu mooy duxu céeri ku ne koo xam ne yaram wi dafa tàng day gaaw a fend lool doo céeri mag moo xam ne yaram wi dafa sedd day yéex yéex a fendi céeri ku digg doomu la jamono jii dem duxu noor nga xam ne loolaa rek mu wow ci saasa doo nawet tam nga xam ne ndox dafa yéex a yéex a wow moo tax mu ne itala laa Euh, digg doomu nañu ñoom ñaar waal yàlla la aji sakkar su ko fàtte ko waxata teew man ko te kon bu fekkee da ko fàtte fàtte ko fàtte ko ci kanam danga ñëw jox ci la mu amaale woon moo xam teel da ko wala bu ko lottee nag kon ci la mu amaale koy tàmbaliwaat mu waalaatu dootu waajibatun de sunna soo sunna la xanaa bu naan nañ ci wuutee bokk nañu far eh, farataay ni yetu gasnel xadasi yéete yéene la xenda waj yi fu muy raxasee karkanam foofu la koy yéenee awil wala mu yéene ni njàpp mi may def nii njàppal farata la awil sibaata moom nooyeen wala mu yéene sàkkoo daganal lu ñu tere sañu may laal kaamil sañu may julli ci jàpp moom maa ngay jàpp ndax ma sañ ko booy xeenee ne dangay ñàpp njàppal farata dana wét wayen ma tabaru den doonte dafa ànd ak nga di ci sàkkuwaale seetal sa yaram boo xeenee istibaata mam nooen dana wét wayen ma tabaru den doonte danga ci yéene aale seetal sa yaram aw axraja wala mu génne sax maanaam mu musta bàyyi lenn lu dañ ko xaraamaloon mu julli te moom laal kaamil te jàppul eh, léegi nag mu ne man maa ngi jàpp ngir ma julli ci bu jullee bu jàppee ngir ma julli ci farat itam tey man na jël naafila mën na jël laal kaamil mën na jël lépp lu mu bëgg a def moom koy sañu la génnee dara lu génnee fi génn awaaxale yow na mu génnee ba baax dañ mosuwaay leen lu ñu daganal du tee muy njàppal lépp lépp aw na si wala mu fàtte sax xadasan toj le dafa toj la woon ñaari toj yu bokkut ndax demoon na ci wana wangale bi tam génnoon na ci moom mu fàtte ci benn loolu tam du tee njàppale mën na lu waaye nag laa rajo waxuma bu ko génnee de kooku moom bu ko génnee day génn moom dafa toj la woon gannaaw bu mu jàppee ak léegi demoon na ca wan ak woy itam gannaaw bu mu jàppee ak léegi ma na sàkkaram itam gannaaw bu mu jàppee léegi mu ne maa ngi jàppal néeg li ma demoon ci wan ak wa waaye waxuma néeg li ma laal li ma laaloon kon jàpp la du wét xanaa wala mu ne mu la ko taxaara de mu ne laab loolu sax da jàpp am mu ne man de bëgg laab rek du am jàpp lu man du am jàpp de dangay wax ne li ma tax a jàpp kay damay jàpp jàppal farata wala damaa daganal liñ ma tere woon awi dama dama wala daganal loo di ba soppe jàpp loo ñeel ko wala dugg ci jàkkee jël fa dara rek soppal nañ sopp nañ ci jàpp bal ngay dugg ci jàkk loolu ko taxoon a jàpp njàpp loolu mënu cee def farata aw xaala wala mu ne in kuntu bu fekkee nekkoon naa ad ah dastu tojle wala ñii naan la ko njàpp lii bu fekkee tojloo ma nag kon man jàppalu ma dara amagul jàpp de aw jot da wala mu ne maa ngi yéene xeesal njàpp aw xaala wala mu wax ne in kuntu dem nekkoon naa ah dastu tojle naa ah, wala ñii naan la ko njàpp lii su ma doy woon nag kon jarul may jàpp jàpp na nag fa tamit yéen a jël soo toj leen amul jàpp de aw jënd na wala mu ne damay jàpp njàppal xeesal fa tamit yéen a jël soo toj leen bi mu amuloo sax jàpp amul jàpp de aw dara ka wala mu bàyyi lu mu atal leneen fan xas la mu raggoo bi mu yéen li ci yéene ngëneel wala ba mooy raxas yoon wu njëkk wa am na place boo xam ne tooyu doon mooy raxasaat yoonu ñaari xéeri xéeri ci sunna tooyut ba tey mooy raxasaat yoonu ngëneel yoonu ñett li ngeen ci ngëneel ci lay door a tooyee amuñ jàpp de ak farraxa wala mu tàggale andi yeddi yéene moom li bëgg bëri la coono de karkanam yéene boppam loxo yéene boppam bopp yéene boppam tànk yéene boppam allah daay ci céer yi amul jàpp de waaye wal asoo la gën a feeñ bi ne nuur bi rek bu taxee ci mujj mujj bi nii bu mujj bii nee nañ daal lañ ko nañ ko ci coonoom boobu rek yërëm nañ ko ci coono bi waaye asiya duñ jàpp di wét na moo soo ba fàttum yéene ba doxoo ci gannaaw boo yéene ba pare fàtt nag ne yéene woon nga muxtafaloon lu ñuy jéggale la moo tax daa hiini hiiniwu ma tàmbali nga jàpp yaa ngi gën di jàpp naan hiini woon naa jàpp hiinitu ma da ngay am nga jàpp ne moxta ko loolu luy la mi ci jiitu hiine njàpp ci njàpp di yéesi leen ci dundum néew xilaaf lan lañ ci wuutee wasu na noo su nay njàpp xar la yedey mooy raxas ñaari loxoom awalan ci jaamu yàlla laay doon yàlla ko sa du woon ne ñenn ñi ñu naan dañ koy def pour ñu xam ndox mi eh, soppeeku nu wala soppeekuwul déedéet taxambul la bu mu laxee ndoxo mu lax mi mën jàpp ci boppam ndox moom moom la ñuy raxasee loxo ci lañ eh, wane yéene ak yéene de damay laaj yéene ndax taxambul la te taxambul dafay ànd ak yéene walaw na si fa tamit donte di nga jëpp bëgg a jàpp fekkoon na sa ñaar loxo yi set wécc tam bu fee danga ne raxas aw des aw àndasa wala mu toj le fii am naa yi ci biir jàpp lim tàmbali woon toj le dëpp tàmbaliwaat ko ba tey dana raxas ñaar loxoom muftari xatay day day leen raxas ñoom ñaar ñu ne woy taxale ko day raxas raxas loxo bi bu pare raxas loxo ba leen wa man malatun gàllandeku sunna la ci njàpp wasisaaxun soxonteku la sunna la ci njàpp wa baalaxa day soxonteku bu baax ndox mi dugg muftarin koo xam ne kii nii dafa dog xoolut bu fee loxumaa sopp nañ def gàllandeku ak soxonteku bi sittin ci wa fii loxumaa def gàllandeku soxonteku bi ci juróom benn tànqin tànq gàllandeku dell taxaat galande ko dellu taxaat ko ba muy ñetti yoon nga ta galande ko nga tànk soxande ko dellu takka soxande ko ba muy ñetti yoon afdalu moo gën wajaada ñoom ñaar ñëpp bëggal nañ ne ba karfatin benn tànqeen képp képp képp nga galande ko ci soxande ko ci aw yi wala kenn ci nga def ko ba xar xarfatin ci benn tànqeen dagaan na wa simsaarun siiru wa maso waj xay kulli usnin ak masa ñaari kanami dépp nopp nopp ndejoor ak nopp càmmooñ wa tajiiru maayihima ak xeesa seen ndox ñoom ñaar waradu masirasi ak delloo masa boppam wa tatiiru fara faraayili ak toftale farataam nga xam ne karkanam ngay njëkkee teg loxo teg bopp teg tànk gannaaw nag sunna la fooy xaar jeex na ba am na nag kësu lu ñuy jët wala doo moom daal boo jëttee jiital bopp ci loxo da dëppaat jiital loxo ci bopp bu demee nag ba nga xam ne yàgg na nag in boxoon nañ yàgg na Eh, kon danga nga jotoon képp ngay baamu li ci def nga bàyyi ko fa yàgg na mu ngi amee di jëfaatal ci seen di ciir yi diggu doomu ci jamono ji diggu doomu waaye laa nem yàggul teen ngaa yëg ne yow da ngaa jët da nga baamu ba mu jotoon maxataab yi ànd ko ci topp bañ li ci mujj njàpp la xamante nag ku bàyyi na fontan forat ataa gaaw a gaaw dikkee bii ci moom bu fekkente ne ga demoon na ba julli nag door ko fàttaliku ba bu salaat dana indi dana baamu julli te itam wasu na dem ko bàyyi ku jàpp bàyyi sunna fana laa naa def sunna sa bàyyi limaa ngir jaamu yàlla boo xam ne yi sax mën a ko jublu ba fa daay noo nga nee lan jàpp moo doon mooy jàpp ci pàkk moo xam ne taayarul aji la waxilatul maay ak néewal ndox bi laa xaddin wutuluñ ko doon benn dayoo kan ko fi nekk jàngaay néewal ndox bi laa xaddin wutuluñ ko benn dayoo bal yàq ndox daal lañ jublu li muy dàq mooy ñu naan yaa ngay jàppe ci muut day ci desangoo ci ñeenti muut watayee munu watayee munu àndaayal ak ci ndey jooral ay céer njëkkee ndeyjoor teg càmmooñ waye naaye ndam li ngay jàppee nga teg ko ci wàllu ndeyjoor in futaa ndem ndab la loo xam ne dañ ko ubbi wa baroon assemblée bi muqaddame doon si ci njëb boppam jëmale ko ca ndong ndong la war sax moo xam ne ak lépp lu ñuy ragg rek ñu di ko tollanti kay kanam dañ ko rek ñu tollanti ko loxo dañ ko rek ñu tollanti ko bopp moom dañ ko masaa wa tasliisoo ak ko def ba mu ñett ñett li ñu ragg toujours moom la ñuy def ñaari benn yoon ñaari yoon ñetti yoon bopp moom dañ koy masaa nopp dañ koy masaa benn yoon lañ leen ay def waali yàlla arillaani ñaari tànk yi dañ leen ragg benn yoon ñet yoon ñetti yoon kasaalika niki li ñuy ragg la amit na loolu wala li ñu sàkk ci ñaari tànk kay bul ak intaaw mooy di sot di raxas di raxas di raxas ba mu set doo wëññi raxasal ba mu set rek wala ñetti yoon la ñu lay raxas waaye yàlla ndax tukuroo delloo dugg araagaatu raxasam ñeenteel dañ ko si moom lépp aw wala sax sum na woon dañ koo tere ginnaaw dañ koo tere naa def xanaa bu nam nañ ci wutee moo tax te mosu na nii ak toftale ay sunnaam aw ma aw ma faraidi yi wala ànd ak toftali ko ànd ak ay farataam tartib moom itam lu aju leeral la tartibul faraidi yi moo ne karkanam mooy njëkk loxo mooy topp bopp topp eh, eh, eh, nopp topp tànk topp tartibu maa sunani tartibu sunani mooy da ngay jiital galan na dangay ngay jiital raxasu te galanteku te soxandeku tartiibul faraa'id maa sunna ni mooy da ñëw ci kar kanam nga def farataam def sunnaam def nga néelam bàyyee ko fa denc loxo def farataam def sunnaam def nga néelam bàyyee fa def denc bopp def farataam def sunnaam dem nga ne la fi bata njàppalee pare loolu bu ñu nee bay faraay de mooy loolu bu dee te faraay ak sunna yi noonu la naka noonu suñ ko waxoon ci julli itam noonu la wati waa kon soo ci wa in bi is ba en donte sa baaraam ngay woowee sa gémmeñ kasaar léegi bépp julli boo xam ne ba de sori na mel ni ci socc boobu képp képp ku bëgg a julli te nga ci socc soppoon nañ soo amul soxla ci baamul njàpp itam sopp nañ nga baamul soccu watal neetum ak bismillaahi booy jàpp sopp nañ booy jàpp nga wax bismillaahi waaye bismillaahi moom dafa am ay mbir yoo xam ne dañ caa sopp bismillaahi seexul ko leen da ko bëgg a jokk fii watu sama def na yoonal bismillaahi dañ ko santaane fi xul dañ ci kuy sangu wa tey moom ngeen koy tiim su naan lañ ci moom bismillah yoonal lañ ci moom bismillah waa ka leen koy lekk yoonal lañ ci moom bismillah wa soo ngeen naan yoonal lañ ci moom bismillah wa sakaatan koy rendi yoonal lañ ci moom bismillah waru ko bi daa batin war lañ ci moom bismillah wa na fi war gaal yoonal lañ ci bismillah waa doxoolin ak tàbbi li man si liñ ci wàccuwaay yoonal nañ ci bisimilah wane bi ak safaanam tàbbi xanaa mooy génn li si liñ ci wàccuwaay yoonal nañ ci bisimilah wa doxoolin ak tàbbi masjidin boo bëggee dugg ko masjidin ak tàbbi jàkk yoonal nañ ci bisimilah wa lubsin boo de sol yoonal nañ ci bisimilah eh, wa xalaxe baabin ak tëj bunt. yoonal nañ ci bismillah yi wa itfaayi misbaayan fay làmp yoonal nañ ci bismillah yi wa wat in laal sa soxna yoonal nañ ci bismillah yi wa soxna xatiibam xutbakat bi moo di yeeg minbaran mi minbar yoonal nañ ci bismillah yi wa tahmiidu maytin ak gëmmal bëti ko faatu yoonal nañ ci bismillah yi wala dee ak ko faatu ñu ko dugal ci laat ba yoonal nañ ci bismillah yi wala tun dabu def sopp nag moom mukk itaaratul xurati dégg ñu ne xee suma xeet yi seen njàpp yi fu mu àgg bu yemal koy amee seen leeri karkanam ak seen leeri loxo da cay àgg nga naa raxas ba dem ci sumay pëdëg suma yeel ma raxas ko ba ci sumay wóom wala tun dabu def sopp itaaratul xurati gudul weex weex wa ma soo raqabati kenn soppul ma taab masaa dox botal ko masin alaay jàpp ba pare ne duma fomp musuwaar kenn waxul la ne dañoo sopp bàyyi masaa fomp musuwaar kenn waxul la ne ñàkkaam fomp musuwaar moo gën watal ko masin alaay walaa tunda bu def sopp sar ko masin alaay bàyyi masaa céer ak sàddat waaye sakk buy sikk fii saalisatin sakk bii bu ma ragee ñetteeli yoon laay du xam wala mu doon ñeenteeli yoon fa bi karaata ndax sib nañu ko ndax kat dafay doon ñeent de ci ñeent moom tumnoo ci gannaaw lañu waxoon ne dañ ko si wala tumnoo dañ ko tere wala ba ndax dañoo sopp nga ragg ko ndax soo ko defulee mën naa am nga manqué la ñetti de xaw laa naa mel ci ñaari wax xaaral xaaral wax na Martin ci jëmmi boppam parce que kii mu ngi rek si sa yéen a arafata xal woo ndax moom ala xeen xeen la moom xamut bis bi xamut jamono ji fi ñu toll dafa tumuraanke fi nekk moom kenn amul kum laaj muy sikki sàkk bis bi ndax yow mu arafat la am déet wala xeen la bu arafat la kooku itam ndax dañuy sib mu woor koom ndax dafay tàmbali ci de wala dañuy a mu woor koom ndax yow mu arafata bu mu ko boo ko faat moom itam xaw laa ne am na ñaari wax